donc Gaï, euh, voilà donc euh, Françoise Hélène gay qui sont waa Kodas ana ah. donc voilà depuis le début Marc Yenle, le muy metti bu metti bu metti lol, mais on était là donc voilà donc euh, di nuyu Françoise comme nous, nga ko ci live c'est vrai que ni au tout début. Euh, mun naa ne heure bi nii fajar la ci moom day bàyyi jëkkëram bàyyi doomam dem taxawu ndeysaan euh, taxaw ci live bi moom ak it waa Kodas di remercier bu baax a baax euh, sister aw ma sa fay du ma ko rabi dof dof aussi maa ngi ziar voilà donc c'est bon on peut commencer alors donc gars tout d'abord di leen remercier vraiment c'est une euh, fidélité euh, ndaxte li ñuy c'est depuis 2016 qu'on le fait defe un live euh, Facebook à part Frances Ellen Gay, man la deuxième personne à le faire et aussi régulièrement comme ay sénégalais après nak gis voilà d'autres gens au Sénégal ils ont pris aussi la relève enfin la relève ils ont suivi et puis après télévision yi nga xamante ni ñama doon liggéeyal ñen ñi dañ doon sax ree euh, di ma rétana ah, légui de mujjé na ci réseaux sociaux le ben tout le monde maintenant fait des live Facebook télévision ak ñom sen live ci YouTube bi euh kon nak gaay yi gënaaw buñ leen nuyoo euh, tey dinañ ñëw def un suivi de ce qui s'est passé donc euh, semaine bi s'est passé beaucoup beaucoup beaucoup de choses surtout sur ma live bi mujj ça fait jaser voilà tout le monde a parlé. de ci ñëw on va pas trop se précipiter donc je euh, vais faire un suivi de tout ça Nous également ci presse je vais lancer un message à la presse sénégalaise euh, également aussi je pense que ni comme Mansourina euh, parfois je discute avec certains mais je pense que ni ni ils ne peuvent rien je pense qu'il faut en parler et puis nak Sénégal yeen ngeen xol nak ngeen di euh, nak ngeen di régler mbir laver le linge sale bon il faut toujours laver le linge sale en famille donc comment on peut donc régler tout ça en famille mais il est temps il est temps parce qu'il y a beaucoup de dégâts et après ce qui s'est passé dimanche des Sénégalais ñenn ñi euh, nekkuñ ci parti politique dañ ma suivre qu'est-ce qu'ils m'ont dit Maty cela montre que tout ce déferlement cela montre que

donc voilà, en fait. Alors donc on va d'abord revenir sur ce qui s'est passé dimanche passé. Euh, je vais lancer un message à Wolf TV, euh, cher Nias, déjà c'est mon, petit frère. Je sais que tu m'as euh, toujours euh, respecté. <laughs> donc ce sera un message que je vais lancer donc à à à parce qu'on a des informations qui euh, euh, lu également Wolf TV ce qui s'y passe également y a yenn journalistes y a chroniqueurs et bien que euh, on m'a cité des noms et j'ai vu aussi des extraits euh journalistes ñi TV ñi ñi dignité ils essayent de faire le travail de manière impartiale ils sont même ostracisé on peut dire parce qu'il y a une plateau, ils sont encore xam nga da am lu feeling c'est-à-dire euh, quand tu es dedans depuis des années plateau ni technique, ni sax bu ñu journaliste bi wala chroniqueur bi da koy xam tu le sens tout de suite parce qu'on a été dedans donc euh, ils veulent faire le travail de manière euh, juste équitable ils sont pas vraiment là pour tresser de laurier à son da ils sont même comme ostracisés comme si ils sont euh, marginalisés dañ leen voilà c'est vraiment scandaleux et lii c'est des Sénégalais qui me après ce qui s'est passé dimanche qui m'ont interpellé là-dessus kon nag bu len fàtte ne sénégalais yaa len di sétane eh, ken kenn gëmul nelawul gars yi gëmuñu nelawul donc euh buñu ñëwé ci li ni mel donc le suivi un message que je vais lancer directement à mon jeune frère Chernias euh également Pastef ses liens avec le MFDC gis ngeen des photos circuler également c'est une affaire sérieuse Moi, j'ai été très on va dire très euh, euh, très surprise euh, parce que si lu wax lepp on a juste dañu comp ben affaire bu ci gëna ñak solo gaay di ci wax di ci wax di ci wax di ci wax alors que amna leneen lu ëpp solo lo xam ne waxtaanee woon nañ ko euh, ci live bi passé te surtout l'heure est grave le Sénégal est en danger donc tay message bobu la la bëgg a tay ak tamit yeen pour sama mbokk sénégalais mbokk presse sénégalaise euh, journalistes également parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu donc bu ñu jógee ci euh, euh MFDC et le PASTEF les accointances dina ci ñëw un petit peu également jox leen ay quelques euh, ay pistes ñi ngeen xam ne war ngeen leen suivre ci réseaux sociaux yi ils sont spécialisés là-dessus se sont spécialisés là-dessus moom mooy ñoom ba ñoom ba jaxatee donc voilà dinañ ci ñëw bu ci kanamee léegi euh, également euh, am na benn waay ju ñàkk solo goo xamante ne euh, je vois, ça tout le est, je le méprise. C'est-à-dire ces façons de, ces, gens-là, n'est que steve qui se prennent pour euh, des gens importants, qui sont rien du tout en fait, mais qui sont absolument rien. Du moment que nous les invité du plateau télé, voilà, boy, nous les de de sociaux et tout cela, ils s'y croient en fait donc Amna euh, qu'est-ce qu'il a dit oui euh, voilà Mati, euh, Pastef de ko war a porter plainte xaw ak parce que j'ai fait apologie de xaw ma lan ak lan la tontu mais du me tout sa tour parce que tu es insignifiant t'es rien du tout Bon ma la yàgg xam sax ba la xamee sax ben, émission defe naa Pape Ngagne Là la découvrir avec d'autres personnes t'es t'es insignifiant t'es tellement bête dama lay tontu rek nga jël tontu bi rek ngeen booloo ko yéen yéen yéen Sonko boys ak ñi nga xam ne ñoo rajji rajji ci internet bi mais taxaw maa jóg man Sonko lay waxal directement taxaw maa jóg ngóor si bala xaw donc je vais te je vais te répondre par rapport ak cette brigade là parce qu'il y a une brigade bi nga xam te dañ ko taxawal justement action réaction li ngeen non def donc mois de mars dootul amati nawoon woon ni na te dinaa leen wax lu tax bu loolu weesoo gis ngeen depuis quelques depuis depuis quelques heures waa passé dañoo légui euh dañu jot ay instructions yu bees légui nee point de diversion maintenant on fonce sur les législatives ñom la racaille de Facebook ñom wa Kër Sonko yi les Sonko boys lepp luñu def rek dañoo jot ay instructions ci kaw. légui comme déjà euh, l'homme du 17 avril moy l'homme du 17 avril borom borom audio audio yu bari borom audio 17 minutes ba comme déjà dafa def benn naufrage bëgg leen yóbbaale ñoom ñëpp te moo doon seen yaakaar àdduna àdduna li des li leen desoon ci yaakaar te dafa nekk en plein naufrage donc ginnaaw loolu weesu na affaire bi capoté ñu jéem a euh, takkal Fouta Tampi affaire bi capoté xale bu jigéen bi ñoo def live boo xamante ne bu retentissant ñëpp gis ne c'était du fake montage boo xam ne de bas gamme comme loolu am donc amatuñu fu ñu jafandu nee nañ léegi législative yi donc les les nouvelles instructions mooy législatives. mais ça dinañ xool bu baax a baax a baax a baax changer l'autre. parce que lu ngeen def rek man xam naa ne am na lu tax lu ngeen tëgg rek man xam naa lu tax te dinañ ko gën a gëstu nag dinaa ko gën a gëstu man sama bopp donc bu ñu jógee ci loolu la plainte xam ngeen Ndeye Khady Ndiaye dafa porter plainte kii di euh, Adji Sarr ndaxte nee na euh, Adji Sarr daf ko filmer ci bureau bureau ci bureau juge bi maanaam jour confrontation euh, seen confrontation bi te nag bu leen fàtte ne Adji Sarr balaa muy def vidéo bi ni mel moom mii di Ndeye Khady Ndiaye moo njëkk a def benn snap tout le monde l'a vu donc ci bureau doyen doyen des juges ci fi ñu ko doon defee mu ngi def snap de kekkantoo gars yi di woné né mom moom ngi free mom mom mom Ndeye Khady mom mi ngi bëggee donc elle l'a fait dans le bureau du juge le jour même de la confrontation donc vidéo bobu moo bama gissé Gabriel ba euh, euh, Gabriel Kane mu def interview gay yi naan ko ana vidéo bobu voilà bref euh, ñooñu ñenn ñi samay xarit lañ donc sans commentaire j'étais surprise parce que vidéo bobo, les sites l'ont repris vidéo on est Ndiaye ci biir bureau ci bureau doyen des juges mu snap gars yi ci instant bi témé site internet yi ñëpp ko jël ñu bare ko jël publier ko donc dinañ ñëw ci li ni mel euh, dinañ aussi jéem duggal ki nga xamne mom moy Gabriel Kane euh, Gabriel Kane des déjà m'ont interpellé aussi ce matin euh, lan lo jotté ak Gabriel Kane par rapport ak sujet bi nga xamne mom mo dimanche passé Il y a rien du tout mais alors là rien du tout Gabriel Kane légui légui la mujjé wax ak mom avant le live parce que warna duggu elle est très très très fatiguée du duggu en vidéo mais elle duggu en audio Il y a aucun problème voilà donc jour bobo, elle était sur plein de choses jour bobo, elle était sur son téléphone donc elle a répondu comme ça mais dimanche passé elle était dans le live nous nous suivre donc bon, ma live mais tu n'as pas cité de nom Mathis. je ne comprends pas n'as pas cité de nom j'ai pas cité de nom bref donc on va parler de ça ñu ñëw également ci euh, euh, li de ginaaw raay ak ndogu bi nga xamantene wa colas donc ñom ñoko euh, donc organiser ko ndogu xalé yi ginaaw raay ak ñom Françoise Hélène Gaye mu jur ciow lu bare baree nañ nous ci li mel ci voilà donc ndogu elle en a parlé hier ma demb sax la ko pourtant on l'a partagé un peu partout qu'est-ce qui s'est passé ba nga il paraît que dafa am une femme bo elle fait partie de CODAS def donc euh, voilà chaque euh, ramadan daf koy def day def organiser ay ndogu et tout donc CODAS bi Françoise ñu jappalé ko ci euh, Françoise néna ma sax man ña Françoise elle est de Thiès donc nous, nous, def ndogu donc wa Kër c'est cette mentalité et comment ils réfléchissent comment ces gens sont sont sournois sont vicieux sont mauvais ces gens sont mauvais ces gens pour la politique ils sont prêts à tout c'est des gens qui sont désespérés ils sont pitoyables c'est un comportement pitoyable donc imaginez les réseaux fexe ba am euh, xam xalé dëkk te, ci raay jappal ci di di ay ay message di di saga. dégg toute une nuit di saga, xalé yi di terroriser xalé yi traumatiser xalé yi ba noonu xalé ko li ay saga ñoom seen yow de manière volontaire xamoo lu xew xamoo bi ci réseaux sociaux yi pour que ñu may leen jàmm ñu ne leen da ngeen di def da ngeen di def ben vidéo bu ko défé ngeen ngeen ngeen wa waa Kodas ak Françoise su ko défé su ko défé ngeen tiiñal wa waa Kodas su ko défé ñepp xamantene ah fi kat voilà donc ñi dañ leena fay dañ leen fay 5000 pour que ngeen pour que pour que ngeen mëna ngeen mëna ngeen mun def euh, ngeen mëna def euh, ndogu bi mais li c'est incroyable ay xalé yu ndaw ay xalé yu ndaw ngeen leen di traumatiser comme ça pour lan def len ay cœur ñi ngi yak live bi def len ay cœur def leen ay cœur s'il vous plaît def leen ay cœur s'il vous plaît def ay cœur ñu ngi def bop mer def ay cœur s'il vous plaît def leen ay cœur s'il vous plaît def leen ay cœur s'il vous plaît may la ma tuuti may ma tuuti ma ma voilà donc on continue may ma ma d'abord une bonne vidéo Wa Pastef mom bo tuddee Ousmane Sonko te néwo mo baax ñu sagala la Lool nak bu ngeen yaakaaré ni modi politique vous vous trompez parce que kii saaga tey wut réew mi ko kuy saaga kay boo ko joxee réew mi góorlëgee da koy taal. oh na kuy woote. waa Pastef moom boo tuddee Ousmane Sonko te néewoo moo baax ñu saaga la ndey loolu nag bu ngeen yaakaaree ni moo di politique vous vous trompez parce que kii saaga tey wut réew mi ko kuy saaga kay boo ko joxee réew mi góorlëgee da koy taal. am na kuy wootee ak. waa Pastef moom boo tuddee Ousmane Sonko te néewoo moo baax ñu saaga la ndey loolu nak bu ngeen yaakaaree ni modi politique vous vous trompez parce que kii saga tay wut rewmi ko kuy saga kay boko joxe rew ngol mi da koy tal voilà ah ben donc je pense que c'est en fait. Euh... en fait vidéo bi moom moo gàtt man vidéo bu gudd bi mom la amone sank et c'était vraiment vraiment intéressant donc ce que je peux vous dire moom mooy sama gars euh ñii dañu wut rew déjà amagulo amagulo gars yi may ma tuuti euh, sama sama sama sama sama voisin may leen ma tuuti ma ñëw s'il vous plaît may la ma tuuti rek ma ñëw s'il vous plaît maa ngi jégalu maa ngi jégalu maa ko mangi ngi damay parce que voilà pour être bien bien à l'aise voilà donc bonjour, que tu ci ça sama gars ce qui s'est passé dimanche passé ma live vous avez bien vu que j'ai pas cité de nom tout de suite je vous dis une chose et très sincèrement même ces gamines ne m'intéressent guère ces gamines ne m'intéressent pas je ne suis pas là pour des affaires de coucherie ça m'intéresse pas ba def show to show ba euh, euh, émission de euh, Sen TV def émission 100 people te loolu Tange Tandian moun na ma seede émission bi waru moon def ça émission 100 people je devais faire une émission bu intéressante on m'a dit que c'est trop c'est trop intellectuel Moi, tax ma def ben émission qui est très style très léger pour nous, ñi xam ne match ñëwaat na après nous ma door a teg yeneen concept Yalla xam na ne scoop yu bari c'était Tange Tandian qui donnait ces scoops là yalla xam ne buñu daan jóge ci plateau bi du nek sa diko won nan ko déwul kan mo kan nga don defar devinette kan la kan la lijjantiwu ma man je m'en je m'en fiche ci les histoires de coucherie à mon âge nekkuma fi pour juger qui qui que ce soit gay yi muus leen tuuti ubbi ubbi leen seeni xel man bamay wax 2STV yi ak wa Pastef nuñu duggé duggee presse bi nuñu infiltrer presse bi j'ai pris un exemple pour étayer mes propos pour étayer mes propos je jël exemple pour voir comment ils font parce que qui dit est Ndiaye il est très regardant attention ci ci fait Ken ko il est quelqu'un de très responsable ba ngeen voyez ne y a yu nan la mais da nga 31 décembre ci plateau bi ce très voit. nañ ko attirer son attention tout simplement et jox style et il y a un petit groupe qui ils sont de ils sont de Sonko je le sais on m'a donné des noms bir de il y a un petit groupe qui xamné ils sont pro Sonko je le sais et ce que je disais c'était pour étayer mes propos man les gamines là qui couchent avec qui ça m'intéresse pas encore une fois et je le dis et je le répète dawuma sala yaay dama ni deux stv yi te information bi journaliste yu bari am nañ ko maanaam mako mujjé mako mujjé am maanaam mako mujjé am journaliste yu bari amoon nañ ko je pas cité de nom ñom ñep ku ne ku ne ku ne tomber euh, ku ne ku ne tëkkatoo affaire bi alors que ñu ci bari ils étaient au courant d'accord donc je le répète amna journaliste bu xamantene fofu foofu te 2STV yi génn na ak responsable pasteur ba Un ba avorté d'accord elle ne m'intéresse pas les gamines ne m'intéressent pas et ce qu'elles font de leurs fesses ça ne m'intéresse pas ce que encore une fois ce que je disais mon moi, ba TV, presque presse bi nous ñu koy infiltrer nous nous infiltrer presse nous infiltrer c'est pas possible c'est pas possible faites attention patron de presse faites attention Journaliste, faites attention journalistes faites attention parce que quand nous, nu les journalistes surtout les jeunes les jeunes journalistes les jeunes journalistes là, attirer attention parce que def nañ ko ñenn ñi dañu ñëw ne la Macky Sall kat ah Macky Sall di jéxal na Macky Sall na donc il faut venir avec nous de Macky Sall ay weer ko fi déssé ñew leen ak ñun parce que ñun nous, nous nous. c'est l'avenir bu nga êtes ak ñun bu au moins on pourra gouverner ensemble voilà Je ngeen un petit peu ce de quoi je parle ils sont convaincus que Sonko mooy président en 2024 donc nous, ñi les jeunes là on sait très bien pourquoi on sait très bien bon langage les de tenir mais sachez que politique politique de nekk lu politique dafa lu on ne peut jamais prédire l'avenir

Chers confrères, on vous demande juste une seule chose, s'il vous plaît. Moi, je gëstu même pas ça même vous faites ne vous voulez pas le faire vous pouvez pas le faire Ça de publier une li mais on vous demande tout simplement chers confrères et consoeurs moi, ligne Pastef MFDC le lien faites vos investigations s'il vous plaît dem essayez de savoir au niveau de la Guinée-Bissau pourquoi Guinée-Bissau, euh, Sonko est parti voir des hommes politiques en Guinée-Bissau. Essayez de savoir pourquoi les gens qui sont avec Ousmane Sonko, pourquoi quand ça pète en Guinée-Bissau, ils sont contents. Pourquoi le coup d'État passé le putsch bipassé, quand ça, quand ça a commencé, pourquoi ils étaient contents. Essayez de savoir pourquoi. Pourquoi quand, ça a foiré, ils étaient euh, euh affaiblis Essayez de creuser. Essayez de savoir quel est le lien entre Ousmane Sonko et Salif Sadio et ak euh, euh, essayez de creuser s'il vous plaît quand on vous a dit au mois de mars les événements passés pour en fait c'est une stratégie pour nous buñ leen nous dañuy jël li parce que xam mois de mars les forces occultes yi nga ministre de l'intérieur de wax

ay nit jóge jóge jóge fa ñu jóge du ma joxe sax ay ay ay ay ay ay localité ñëw ba biir Ndakaaru des gens ont été tués par armes blanches. ak yeneen façon yoo xam ne mënuñu koo expliquer fii gars yi def leen attention la presse sénégalaise mun ngeen xalaat seen bopp mun ngeen xalaat seeni poste mais d'abord le Sénégal d'abord le Sénégal moo tax ma ne El Hadj Ndiaye dafa nekk koo xamante ne ni koo responsable mais Walf TV également Cheikh Niass moi, je t'ai connu également responsable. Tu es mon jeune frère. Je sais que tu as de bonnes ambitions, de grandes ambitions pour Wolf TV, pour Wolf le groupe Wolf C'est ton héritage, l'héritage de toute une famille. ak ah, xaw ma lu xew nag xaw ma lu xew biir Walfadjri xaw lu tax ngay gis yene yi pourquoi ngay sétane. des sénégalais yo xamné ne bokkuñu ci ben parti des sénégalais yo xam ne bokkuñu ci ben parti ñuy ñëw naan Walf TV égal Sonko. Fadjiri, Sonko lañ fi nekkal Fadjiri, télévision Sonko mu am ay journalistes yi nga xamante ne nii ñun xam nañ leen xam nañu sen acquaintance ak tamit papa Pastef xam nañ bu baax réunion yi dañ fay taxaw dañ fay nekk am na yoo ne mënuñ ko wax live Teli ma xam bëri xam Cheikh qu'est-ce qu'il passe qu'est-ce qui se passe est-ce que tu maîtrises toujours ton groupe de presse est-ce que tu le maîtrises qu'est-ce qui se passe Cheikh Niass Cheikh Niass je pense que ni même bu dul ay affaire de vue même bu dul ay affaire de ay sponsor et partenariat tu es responsable defe naa ne tey le Sénégal nekkee en danger tey yow Walfadjri do warul bokk ci lu war a ci lu war Sénégal je le pense vraiment et je pense que tu veux relever le défi tey ak koo tu ne mun liggéey na ak sa papa sa papa gërëm na ko ak lu munti demee d'accord la reconnaissance mais d'abord le Sénégal dama la cax de À quoi ak koo xamante ne ak lu munti liggéey ci

gis nañ fi ay audio bañu commencé audition yi day commencé bañu commencé procès mun na euh, euh, euh, day am ngeen gis ngeen commencé waat ci groupe WhatsApp bi ngeen di menacer askan bi di def ay live di menacer askan bi ñëpp gis nañ ko ñaata yoon la fi ay audio nit identifié identifiable am na ñoo ni dinañ leen plainte ci loolu ñu wax te audio c'est des gens de Pastef Beaucoup ci ces groupe ñëpp identifier leen ñuy ñuy menacer ay autorités di menacer ay groupe de presse yeen wa Pastef ya yow xaw ma bu goor bi ba nga am yow fit bu day ne audace bu day ne ñew naan ya ngi may menacer oui on doit porter plainte parce qu'elle a dit ça dama ne sénégalais yi nee nañu on va plus se laisser faire dañu ma yobanté ñu ne ma ku d'abord à commencer par vos activistes qui sont à l'extérieur au niveau de la diaspora ko fi ñew fi ci diaspora bi toog tal sa caméra comme ni ngeen ko defee mois de mars di joxe naan dem la ngeen lakk kër diw di ñëw ci sa utiliser sa page Facebook di bind ne diw fii mooy adresse am dem leen attaqué ko loolu ku ko fi defati yow mi joxe ordre bi gars yi brigade bi nee nañ dinañu la lijjanti xam fan nga dëkk sa kër lijjanti sa kër yow déjà ba nekk Sénégal action réaction buñ fa jógee en parallèle dina am ñoo xam te ne dañuy song ji directement kër Ousmane Sonko Ousou Bébé kër Ousou Bébé la ñuy song song ji song ji kër yenn responsable yi Bassirou Diomaye fay ak ñoom Birame Souley ak ñoom El Malick Ndiaye ma bamtuwaat ko brigade bi nee na li ngeen defoon mois de mars kenn du ko fi kenn du ko fi accepté action réaction ñëpp a yor kër ñëpp a yor njaboot duñ leen di toog leen seetaan ngeen da ngeen di taal réew mi duñu menace ñu toog di leen di seetaan

que les gamines ne m'intéressent pas. C'était un exemple que je donnais pour illustrer ce que je disais. Les désirs de coucherie ne m'intéressent pas. Mais ce que j'ai appris, et puis li ngeen doon def noonu Pastef yi etc. j'ai l'habitude je vous connais vous êtes trop imprévisible vous êtes trop prévisible en fait je vous connais et puis lii dama ko dund ak mois de mois d'avril dama ko dund ak yéen te dara bettuma ca ba pare sax da

buñu waxé ci diw tay ji mun nañu wax euh, lu am solo ci Sonko parce que sen parti jamono yooyu mu ngi nekk en comme ça avec Sonko tay mun nañu commencer sen sen seen seen seen li wax xaw mitigé parce que jamono yooyu par rapport à yenn élection wala locale yi affaire yi bokku ñu coalition donc télévision ya surtout bir sen TV également y a de très grands journalistes amna ko tuddu ndey Ndeye Dibé la defe émission qui euh, euh, euh, maître El Hadj Diouf ma di féliciter maître El a fait une excellente émission il y a d'excellents journalistes et animateurs sur le plateau franchement j'ai regardé avec beaucoup de plaisir Nedime a eu le courage de dire ce qu'elle pensait on a besoin de ça Il mais y a de braves journalistes ci la télévision yi muy wolf ak fep ak mais dañ ne bëgg indi ay élément wu Sonko rek fattuñu Bougane xoolaatal bu baax am na say chroniqueur ay parti politique lañ fa nekkal ak ay nit ay son waa kër Sonko lañ fa nekkal te ñëpp xam nañ ko invité ñi ngeen di invité dañu ñëw ci plateau bi xam nañ ne diw ak diw so ay élément Sonko lañu pour lan on a besoin de chroniqueurs on a besoin de personnes sur des plateaux qui sont imp ay nit yu impartial nit bu impartial lañu soxla sénégalais ils ont besoin d'être édifiés Beaucoup de journalistes on est là pour l'objectivité alors qu'on sait très bien que da ngay nobante ak diw la bokk genre alors que vous fa nga bokk di sénégalais bi nga qui ne xamul xew Nous sommes taal réew da lañu wax bi bi fi jar man may wax nañu tudd maladresse lay doon ma gis sommes yenn sama yenn

parce qu'il y avait deux télévisions. RTS, Gaiden Japonais, c'était trop, voilà. C'était une télé jeune de DSTV. Il y avait autre chose. Tout le monde était sur la 2 C'était la, la, télé numéro 1. Buzz, jamono buzz, buzz jamono yoy la. Jamono yi nak am. Vous avez ce qu'on appelle restant buzz parce qu'il y a beaucoup de télé. La les télé, télévision d'un coup rawatina Ramadan bi j'ai vu beaucoup d'émissions même émission même même façon bi la même façon émission bi copier ko et télévision yëpp même heure bi même heure bi donc il y a plus de euh, euh, euh comment dire il y a que des civils il y a que il y a, y a que les, les, les animateurs ñi ñoo fi donc c'est des superstars amatul kii seetaan Walfadjri mooy dem seetaan après bu un dem seetaan 2STV bi dem seetaan keneen ak keneen ki bëgg Abba moom moo bëgg euh, diw keneen ak Kenan vous avez ce qu'on appelle les roussites alors le culte de la personnalité ñun on se bat ci le culte de la personnalité au lieu de mettre en avant notre beauté etc. on est des femmes waouh, il faut que nous dama et tout cela mais d'abord le contenu mettons en avant notre savoir-faire mettons en avant notre culture générale notre intelligence mais pas tout le temps mettre en avant notre plastique on a dépassé ça mes, mes jeunes consoeurs, on a dépassé le stade de mettre en avant plastique Dans ma dans ma chambre dans ma lit, on a dépassé animation journalisme de ben, mettez en avant ce que vous avez dans le crâne montrez aux gens que les femmes sont elles sont là Nous pas traiter des sujets tu, tu rubrique économie ak leneen ak politique géopolitique tout on a besoin de ce genre de journalistes féminines des femmes je veux dire ma continuer balaa ma jël euh, ki nga xamante ne moom euh, Gabriel Kane ñenn ñi bu ñu defee social 1 2 3 rek pour ñoom voilà donc on est bien sur les réseaux sociaux on est bien suivi voilà on est ci ay site internet wala ci ay télé voilà gars yi dañuy woo ak yu demee noonu calm down mes consoeurs calm down réglez leen s'il vous plaît milieu bi dafa metti carrière dafa gudd lu ne xaj na ci bu dee mbirum social ñun ñu ngi dañuy aider des gens fii day am des migrants des des jeunes sénégalais ils ont été violés ay góor laay wax ah. ils ont été violés en Libye ñëw fii ba war a suicidé wu ñu lay woo téléphone ngay waxtaan ak ñoom di leen di dalal di leen boole ak ay nit ay psychologue ak ay ak ay psychiatre pour ñu mën a dellu si ils ont été violés mënuñu ko wax seen papa mënuñu ko wax seen yaay mënuñu ko wax seen xarit on a eu ça soyez plus humble mes consoeurs soyez humble ma jóge ci loolu voilà may ki nga euh, euh, euh, Gabriel sur la plainte de Adji et ak li xew ak Fouta Tampi Ben, juste rek ben parenthèse bu ndaw man ba ngeen doon nekk di des di rey nit ñi matini matinée man du 17 avril Qui promettroon ay audio rey ba ma ak ak ak yi ak ak ak very, ak a kanam gi mi ngi euh, euh, bu salte bi ndaysan sonn ci live ba nga am sa invité nga bëgg invité bi wax li invité bi di wax leneen internet sonal la audio yi audio yi audio yi nit ki jaan xamul lu muy def comme nak l'homme du 17 avril dafa daal di sourds et tout gaay instant bi ñu ngi ñi soutenir nañu nañ décrédibiliser c'est le cas de Tange Tandian nous di connu au passage Tange au moins il a eu le le courage dans son émission d'hier que j'ai suivi mu Matikat Mati Maté, elle a jamais cité de nom au moins il a eu le courage et la sincérité l'honnêteté de le de le souligner Mom, nak, li ma metti ci moom ci kaam mooy jabaram moo enregistré fan la Sénégal djem. buñ me ba ci sa biir kër mënatoo wóolu kenn mu nekk loo xamante sénégalais lolou moo choqué ci moy jabaram moko enregistrer enregistré nous ne déetawaay Fouta tampi ñu def ben fake montage bo xamné c'est faux du mom mu am courage ak fit et j'ai beaucoup aimé son live ma woko pour pour pour pour wax ko nous sommes loolu lañ soxla ay guerrière bu len daw wa Pastef gàtt sa gàtt sa ngeen bal ma ci wax ci buñ la sommes ruk buñ la ko rek nga ruk tampi tu as montré à la face du monde que du yo, que que Tito Rafo tu vas sortir dans la rue la tête nga sa bop. dignement c'était du fake montage là. ay vous n'avez pas honte et les réseaux sociaux pas condamné ñëpp condamné nous soutenir gars yi def luddul dul na ci mbirum aji sar bi comme ni ma leen ko waxee euh, damay bàyyi ki di euh, Gabriel Kane mu gën la euh, xuus ci mbir mi parce que xamnañ nañ aji elle a pas fait la vidéo en premier elle a pas donc euh, voilà elle a pas filmé en premier c'est d'abord donc comme je l'ai dit Ndeye Khady Ndiaye qui a filmé en premier moom mu gis na Ndeye Khady Ndiaye ngi filmé te xam ni mi ngi snap momit comme mu ngi ko mu ngi jël téléphone bi janno ak mom momit mu filmé mu filmé fa la yem ku nekk wax ko Gabriel elle va elle va elle va le souligner tout à l'heure mu ne ma Maty ma wax ci ci ci ci ci ci ci euh, journaliste c'est un jeune c'est une jeune fille qu'est-ce qu'elle a vécu pendant un an on peut lui pardonner ça c'est une erreur du ma def lu sax jël Gabriel Kane qu'on puisse en parler directement Beaucoup journaliste yi li ma leen di ñaan daal moom mooy ngir ak faites attention s'il vous plaît encore une fois ça me tient à cœur faites attention au pastif dama leen di ñaan rek ngir yàlla ak yonent bi essayez au moins de faire des investigations creusez un peu même bu ngeen ci def pap bu ngeen ci deful papier creusez un peu parlez-en avec avec vos avec vos responsables parlez-en avec les patrons de presse parce que lii raam ci ñag ba la jëm et le Sénégal est en danger may félicité nag yeneen télévision yi parce que Walf TV bi defe nañ ne ñoom ñoo aak ndax waa Kër Sonko yi pour ñoom jàpp nañ ne Walf TV dafa ànd ak ñoom donc ñu leen di won ne leen ci réseaux sociaux yi vous avez beaucoup de vues mais en réalité ce que je wax cher des gens ils sont objectifs nous êtes leen vous êtes cinquième regardez leen vous êtes cinquième une 7TV bu Maimouna Ndour Faye moo ak TV ak 2STV mu am nag d'excellents journalistes Je rends hommage muy ITV ITV des def émission yu am solo ken mënul ne lañ far wala far d'excellents journalistes comme ñoom Mamadou euh, Ibra Kane ak ak ak Alassane Samba Diop il faut leur rendre hommage ma terminer ci benn mbir ci presse yépp nak encore une fois bu ma kenn waxuloo ma kenn yóbbu kër yama ma di tax walfa TV ci Il y a des des journalistes comme je l'ai dit digne mais dañ leen di xaw marginaliser fo dem nak amna ba tay ñu fa ba tay mais dañ leen di marginaliser kon nak ma jël ki nga xamanteni ni may dama ma jël ki nga xamante ne moom Gabriel Kane ah man de bu fekkee

faut pas faut pas ngeen am habitude di saga nit ñi di saga nit ñi Macky Sall mi ngi fi Ousmane Sonko ngi fi Khalifa Sall ngi fi Khalifa Sall lu nekk dégg ngeen ko dañ koy tudd mais doo dégg mukk benn nit di saga ci rew mi nan man Khalifa Sall la andal wa Pastef ñoy saga sénégalais yi actuellement ñoo bëgg terroriser sénégalais yi ba kenn dootul ñemee wax dëgg sax kenn du wax dëgg non Ousmane Sonko c'est un sénégalais comme tous les sénégalais c'est un sénégalais comme tous les sénégalais pourquoi ku ko tudd ngeen saaga ko ndey mais loolu rafetul te moom war ci addu ni l'en arrêter ça parce que ça lolo daf lay perdre loo ay sympathisants parce que ça, xale yi ni Saga saaga dafa ñaaw sax ah. sa dangam tanou ndey fa mu gën Hein? mais quand même ba mën nga bëgg sa leader top ko parce que moi la doy mais bul Saga domi aadama et puis bul yaakaar parce que Mohamed sallallahu alayhi Wasallam mo moo sa leader mo ëppooni non sa leader pourquoi yow Sénégal légui kenn du tudd ki la neex kenn du tudd ki la neex mais loolu jaadoul et puis sénégalais yi bu len accepter ce terrorisme là parce que amna lo xamni terrorisme là kenn du fi waxé dal mais pourquoi ñu bëgg ñoo lap xayna ñi nango dooni mbam lañuy lap mais ñi nga xamni ay doomi adamal di ay gor am fit ñëmé mais dëgg buñ ko gisé dañ koy wax pourquoi ngeen ni nit ñi bu kenn waxati deug bu kenn tudd Ousmane Sonko Ousmane Sonko man xamuma ko woon maag Braba mi ñoo ci yemon bi mu duggé ci langue politique gi lañ ko xam langue googu ku ci dugg ñu tudd la parce que da nga am ay adversaire am ay partisan pourquoi ñom ñoom ñu ni kenn du tudd Ousmane Sonko pourquoi te yeen ngeen di saga bis bu ne Macky Sall parce que yéen képp yéenay saga ci réew mi actuellement te sénégalais xam nañ loolu.

té ñom sax dañuy muju dem ba soofal seen bop parce que ko xamni ni saw làmmiñ dara newu ci lu ruus sa nangam taanu nday sa nangam taanu ndey ak bëccëg il faut cesser d'insulter waay et puis ñi amul argument ñoy saga bor borom xam-xam du saga ki ki bopp bi fess ay saga newu ca ay saga moom mbalé rek la c'est ça et c'est dommage euh, et vraiment sénégalais euh, voilà pourquoi ngeen di nangu Sonko mu changé pourquoi ngeen di nangu waa Ousou changé waa pourquoi ñun comme li politique bi mosuñu mosuñu am genre politique bu euh, voilà donc il y a Gabriel qui qui appelle euh, juste une dernière chose dafa am benn activiste boo xamante ne pour vous dire que ni <laughs> gars yi li ñu leen di gëmloo ak li ñuy dund du benn gars ku ci politique bi ku ci am problème yow la yow ak sa gis ngeen activiste disant activiste yi sen bop lañ fi nekkal amna activiste activiste problème de mœurs bi passé amna weng lan la def les détails avec Anita Diop à suivre may ma Gabriel Kahn. gay bu len nangu gay di leen changer ngir yalla bu len nangu ay ay ay di saga nit ñi bu len nangu changer sen comportement ni ngeen mel restez digne restons sénégalais Gabriel mang ngi lay ziar wa amati ça va Malaisia, bu baax baax je pense que. ngi je pense que tu es un peu euh, souffrante hum. dama xaw a tawat tuuti mais yow mom ci sama nit yi nga bokk donc on va voilà donc je vous on va parler de la plainte de euh, bi nga xam porter plainte ki nga xamante et euh, mais Françoise Hélène je je suis pas euh, sûre que déposer une plainte mais Adissar, je pense qu'on a déposé donc la plainte mais je ci même juste me précision attirer attention que ni gars yi nee du TFM si je parle de la TFM et puis j'ai des amis là-bas j'ai de de bons amis là-bas donc Binta Diallo, donc on a travaillé ensemble depuis, euh, voilà, depuis Walfadiri, euh, femme digne, j'ai déjà mhm. parlé d'elle ici. Donc voilà, donc il y a les, y a les, y a les Binta Diallo, voilà, donc euh, amna ñoo xamantene journaliste xamantene dañuy def seen liggéey fofu mais mais correctement, vraiment. Té xam ngeen né wa Sonko yi dañu dañu leen bëggoon bëggoon taal locaux parce que jàpp nañ comme Youssou Ndour day liggéey euh, mi mi ngi comme ça ak Macky Sall comme kon moom dafa ànd ak euh, Macky Sall kon dañu war a taal TFM dañu war a singali donc y nañ koo wax donc vraiment Manga à à TFM de nouyou, toute la presse sénégalaise encore une fois j'ai rien contre la presse sénégalaise Qui euh, euh, me double les ngol ngol la et je vous ai dit encore Wolf TV il y a des gens bien encore une fois ñu euh, les choses avec beaucoup de déontologie ITV il y a d'excellents journalistes là-bas etc., etc. et TV je vous ai parlé de voilà donc Dimet voilà il y a d'excellents journalistes là-bas voilà donc ngeen xamee que nous diviser mais pour attirer l'attention les jeunes qui sont également sur le site internet les jeunes journalistes faites des investigations pour vous pour vous et pour le Sénégal Vous la corrélation entre PASTEF et MFDC Il rek faire euh, Gabriel ma la nga expliquer euh, gars yi dañ jékki-jékki porter plainte la plainte bi ak non Mati xam nga ndey Khady Ndiaye ay avocat am dañu xey porter plainte euh dañu nek dë dëkk boo xam wax dëgg yalla on est en démocratie te ñun ñëpp euh, bien vrai qu'on a des positions différentes dañu respecter le droit des autres ndey Khady Ndiaye mom ak euh, Adji Sarr ñoo nekk ci biir euh, salle de confrontation bi à la pause mm-hmm. parce que nak c'est pas pendant les auditions c'était à la pause mm-hmm. bi ñu defee pause ndogu bi mm-hmm. ndey Khady di fit di di snap aji elles se sont entrefilmées mm-hmm. pression psychologique la ñom ñaar mm-hmm. donc sincèrement mm-hmm. euh, je pense que euh filmer na euh, li nga les avocats de aussi bien que ñuy euh, bokku ak position dañ koy reconnaître son droit d'accepter ou de ne pas accepter d'être filmé. Mhm. Mhm. xam nga aussi mhm. euh, Adji Sarr xelu xale moo ko jàpp. xelu xale moko japp mu filmer Ndeye Khady Ndiaye dans un moment de défanté donc sincèrement c'est une faute pour xamné daf ko commettre dans un moment euh, de de de tension et puis de pression euh, vidéo bi ñu ko donc sincèrement il y a eu une faute C'est-à-dire, on est des êtres humains euh, bëgg am dëgg ba sa tànk ci mm-hmm. donc sincèrement j'ai été la première mm-hmm. à le dire autant à Adji tous les autres mm-hmm. que c'est une faute que quand on est aussi une victime on est soumis au respect des règles de de de euh, du tribunal on est soumis aussi au respect de la partie adverse Adji euh, Ndeye Khady bien que ce soit la personne adverse il faut lui respecter ses droits man aussi mhm. euh, je damay mhm. mhm. mais j'ai aussi une responsabilité morale vis-à-vis d'elle vis-à-vis de sénégalais Ça sama rak la su défé lu amul yoon dama koy wax sénégalais une faute et il faut lui reconnaître qu'elle a une pression psychologique. Mhm. Elle est dans un contexte pas évident, donc il faut il faut le reconnaître. Voilà. Et les jeunes. Tu vois. Voilà. Et les jeunes. Euh, euh, Mounek, c'est comme une prison depuis un an. Elle est toute seule depuis un an. Donc Mounek aussi qui voilà d'où Donc elle a pas encore gain de cause. Elle veut juste un procès. Donc et les, et les jeunes, vous nous fattenez, elle a, elle a, elle a 20 ans, elle a la vingtaine. Voilà. Elle est, elle est jeune. Mhm. Vous nous fattenez, l'imudoundou, c'est pas évident. Mhm. L'imudoundou dans une salle de confrontation pendant plus de 12 heures. Mhm. de confronter ou avec un de confronter un avocat, c'est pas évident. Donc, dans le contexte bob, elle a fait une faute. Nous avons aussi le droit de dire aux Sénégalais, de dire à la justice sénégalaise que Khalela, elle a, elle a fait une faute, qu'on présente nos excuses, et puis que la justice continue de faire son travail mm. sur ce qui est le dossier bi leen fa indi moy l'accusation de viol mm-hmm. Mm-hmm. xam nga donc sincèrement man bi ma mm-hmm. les nit ñi di jëm dugg ci sujet bobu di jëm wax ne gabriel elle elle a lâché ak non xam nga aussi il faut qu'on se dise des vérités man Adji Sarr jaraluma fen Françoise Hélène Gaye jaraluma fen beneen mbindeefu at tamit jaraluma fen donc moi aussi de wax expliquer si elle a fait ça elle est dans un contexte un peu difficile pour elle mhm. pour une jeune fille de son âge c'est très difficile wax dëgg mhm. mais elle a commis une faute et je suis sûre qu'elle le regrette amèrement mais na nit compréhension voilà je voulais juste bon voilà euh, je sais que ni je veux juste qu'on puisse avoir ah, voilà aussi le fait que voilà elle est jeune et qu'on comprenne que. Euh, elle l'a mais aussi il y a d'abord Ndeye qui a d'abord filmé tellement comme Mac Moron voilà et puis elle a fait voilà elle a rien fait d'extraordinaire elle a filmé comme les Khady et que vous nous faites Les bon d'accord. Hein. voilà donc ñaar ñëpp le quoi je hmm. pense voilà. donc voilà, ñuy détail voilà donc aussi euh, je pense on m'a interpellé tout à l'heure pour me dire Mathilde avec ak avec l'histoire de la fameuse journaliste etc. je pense que voilà Gabriel, on se respecte énormément et que dimanche dernier c'est un détail pour moi dimanche dernier. tu tu étais dans le live, tu m'as pas entendu citer de nom. non non man xam nga man nit ñi dañuy gaaw euh, ne il faut xam nga aussi mhm. Gabriel benn mhm. elle ne peut pas être au rendez-vous et tey Dieu sait que est mhm. li nekk sama a bi tey euh, man rek xam li ma yenn man rek donc man ce que j'ai dit c'est que je suis indignée quand même que euh, bu j'ai vu beaucoup de soutien à Soudjon. j'ai vu sa réaction sur les réseaux sociaux et on n'a pas à faire subir ça aux femmes, mm-hmm. que ce soit Gabriel Kane mm-hmm. que ce soit Mati Trois que ce soit d'autres. Mm-hmm. Mais le constat que moi j'ai fait, en dehors même de Mati c'est que ça a Gabriel, tout mal que le mais personne ne s'est indigné Gabriel avant ñu fekk. attends rek euh, def nañu ma ci trois pommes. attends rek maa et tu tu me l'as dit après. non attends attends maa ma ñëw. Mhm. maa ma ñëw mhm. euh, saaga nañu fi def nañu ma ci trois pommes lu gën on a entendu personne s'indigner. Mhm. xam nga li ma la wax. Euh, Astou Dione aussi que ce cette histoire là on a parlé d'une journaliste. personne n'a pas cité son nom. de live boobu muy man. muy yow. personne n'a cité son nom. elle aussi elle s'est empressée de de xam nga li xale nan yow da nga bind lettre rek sanni mhm. adressé woo ko kenn mom mo wax mom mo euh, gis bopam ne mom la. Mhm. mais à aucun moment on a parlé de son nom. Mhm. en tout cas dans le live de Mati on n'a pas parlé de son nom. xam nga li ma la donc euh, mom moom sax elle a. Elle a, elle a encaissé une chose qui ne lui était pas destinée. Il y a combien de journalistes à la deuxième Il y a combien de... Donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de trucs. Euh, il y a beaucoup de femmes à la 2 Bon, mon reine, elle s'est sentie visée, mhm. mais personne ne l'a visée. Mhm. Personne ne l'a visée, personne ne l'a nommée. Mhm. waaye xam nga nit ñi tamit euh, dañoo bëri mën a wax xam nga li ma la euh, Mati toog na fi ak Gabriel Kane di waxtaan di def live euh, ba tay kenn tuddul turam mm-hmm. ni nit ñi di saytaane ñooy dem mm-hmm. ne ko diw yow lay waxal diw la yow lay waxal mm-hmm. ça arrive souvent donc nit ñi dañuy jaxase mais mu xam ne moom ci boppam Astou personne n'a parlé de son nom te nit ñi di dem di jaxase fii euh, réaction la ñuy en fait. et franchement ça m'intéresse de la même façon souvent, non la personne on kenn tuddul turu kenn. Euh, voilà quoi franchement c'est gamin. kenn tudd fi turu kenn. Non, non, mais sincèrement, et puis nous, nous, on a quand même, une, on est des femmes qu'on a attaquées pour nos positions. Eh Ce n'est pas nous qui allons indiquer une femme. Nous, nous, tout mal ndax xam nañu nous mm-hmm. tooñ nu nous nous ci nit je pense que toi autant que moi mm-hmm. xam nañu que nous muy def ci nit donc je doute je, je suis convaincue d'une chose François si filmer yayam pour won ko mom mi nek États-Unis ne ko xam nañ sa kër sa kër famille luñu neex def donc. Euh, lu non mais Mati man je je je je voilà man moom xam nga man ak yow dañuy dañuy déggante lu bari mais je pense sincèrement que né do nit ku soxor <laughs> do nit kuy wax waxam te je peux témoigner que né kenn waxu fi sa tour. donc sincèrement li yeb jaru ko fi won faire monter la mayonnaise. Euh. Euh, récolter des pluies de de de <laughs> soutien L'ol c'était pas la peine quoi. Franchement. Alors, donc, bah, Hamnane. C'était pas la peine. Voilà. Hamnane, tu es, tu es souffrante et tout ça. Dernière question. Moi, moi, euh, Gisna Gaye, Nena, d'une bougon, présenté au législative 2000, euh, Est-ce que tu as beaucoup, mois de juillet? ñu ne ma présenté wu lam législative. waaw wuu doyna, doyna. Doyna, na doy na doy na doy na sax baal naa leen ko nañ ma bal. waaw d'accord. non merci. Euh, dernier mot dernier mot ci l'affaire Adissar. Adji Sarr gars yi nañ nañ procès bi am on tourne la page et on fait autre chose voilà dernier mot que Dieu accepte nos prières ñu egg ci lolu yalla jappalé ñu ba ñu egg ci lolu mhm. ki yor deug gi wax ñuko ñun ñep on passe à autre chose sincèrement parce qu'on est tous usés par cette histoire. billahi merci beaucoup. on est tous usés. merci euh, rappeler principe bi rek matinée quelque mhm. ñun bu féké les femmes jigen ñi yàq jigen mhm. man duma ànd ak donc si tu étais de celles qui détruisent les femmes deug yalla je ne serais pas à te parler. donc euh, sincèrement nañu nañu bayyi li ñuy def quoi dañu jaxé nit ñi. c'est ça. En tout cas, de La Santé, Merci beaucoup à Gabriel Kahn qui était sur Merci beaucoup. Merci qui est souvent, mais qui a tenu également à participer donc, euh, euh, donc à ce live-là. Encore une fois, me rendre hommage donc euh, jigéen ñi nekk ci biir combat bi góor ñi également ñoom ba jaxatee tous unis ñoom Babacar Mal l'équipe digitale de Rewmi ak ñoom Mané nous, Françoise Hélène Gaye aussi vraiment d'abord le début et à la fin d'abord Françoise Hélène Gaye que nous ma ko on est unis et on veut vraiment une team unie man ci loolu laay dox suba ngoon guddeeg bëccëg tey Françoise Hélène Gaye sur les réseaux sociaux c'est d'abord euh, euh, Hassan Diouf et aussi Idrissa Seck donc voilà daf may donc may vraiment rendre hommage à tout le monde ñoom Koura Maki euh, Fouta Fatoumata euh, euh, Ndiaye Fouta Tampi beaucoup de courage on est derrière toi tu es une vraie guerrière et je suis trop trop fière de toi donc di aussi remercier wa CODAS gépp di remercier bu baraba a baax l'ambassadeur également wa wa wa kër bëgg bàyyi donc suñu nous, kenn du ko taal démb dañ ma groupe WhatsApp donc wa mouvement suñu réew kenn du ko taal maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ñëpp ñëpp ca bopp ba ñoom bëgg bàyyi bañkat yéen ñëpp maa ngi leen di remercier di remercier gars yi yéen ñëpp vraiment j'ai pas aw ma seen fay yéen ñëpp euh, waa réew mi comme je l'ai dit waa CODAS euh, tout le monde tout le monde tout le monde ñoom Kaliphone Sall yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant vous faites un travail extraordinaire ci réseaux sociaux yi Moustapha Didi Diémé gis naa fi ay ñoom euh, également voilà donc soxu bébé soxu bébé damay topp ay nit yoo xam ce qui vous font rire comme comme pas possible merci à tous euh, big up à toi Françoise big up également à Kodas big up à Gabriel également tous nos soutiens à Adji dossier je me disais il s'est passé quelque chose mais go mon viol mais quand j'ai écouté la petite j'ai changé de discours elle a subi beaucoup de choses vivement en procès pour que vous son parcours pour encore plus de respect et aussi ëllëg bu lu ni xewé ci réew ku mel ni Adji Sarr amo doolé amulo famille bu am doolé amulo famille bu xam tane ne célèbre wala papa bu célèbre nga face à un homme politique bu am tout un appareil euh, euh, un appareil derrière lui ak des jeunes sur les réseaux sociaux en tout cas jàmbaar nga euh, Adji Sarr gën la japp li nga muñ mo upp li ci n'y jam ak jam sama gaay ñu ngi dem cette année donc donc élection présidentielle française également dañ jox rendez-vous aussi Sénégal c'est dañu ma invité jam ak jam sama gaay merci à tous Bye-bye. vous <laughs> euh, mbalax lay ziar Anita ci l'activiste la ngeen xol ak yeneen Pastef MFDC y aura des révélations y aura ay dossiers yu war guen Sénégal vous de lu fi Vous fi amati